biir réew mi tey ñoon nag ñu daal di àddu jëm ci li nga xam ni moo di présentation ni ki dem ba rapport boo xam ne gouvernement banque mondiale moo ko doon amal ci wàllu développement ci àdduna bi wërngal képp li ñu doon waxtaane nag bokk na ci wàllum xëy gi nga xam ne ñàkkum xëy gi nga xam ne am na ci Afrique subsaharienne waaye itam ñu gën ci bàyyi xel fi nga xam ni moo di Sénégal gi ñu nekk Mortalla Kane di secrétaire exécutif bu CNES moom nag fekk woon na rencontre boobu ñu daal koy déglu ba tey li bi li mu wax rapport bi ci rapport emploi au niveau Euh, adduna bi yëpp la ko seet seet encore plus précisément ci Afrique mais ci foofu aussi mu wax ci léeg-léeg ci Sénégal euh, li ñu wax euh, daanaka moom waxoon nañ ko ci rapport ba la weesu mais dañ ko dañu liñ dañ ko gën a xarañ parce que dañuy wax ne emploi bi boo xoolee sunu réew nii nit yi ni mbooloo mi tëkkoo xeet bi xaaj bi jigéen la xaaj bi góor donc euh, loolu équilibre boo xam ne bii presque dafa aw ëpp ci jigéen mi ëpp ci góor te loolu dafay indi encore plus jeunes yi nga xam ne dañu nekkoon naturellement dañu ñëw ci marché du travail man di wut liggéey dafa am benn yeneen xeet yeneen nit yoo xam ne ay jigéen lañ daawuñu wut liggéey d'habitude dañuy ñëw yokk marché bi donc li ñu wax moo di emploi toujours économie mu ngi koy créer créer ñu ngi koy employé waaye li nga xam ne moom mooy ñëw di wut suñ liggéey ci marché bi dafay gën a bari année ne Euh, ñu wax ne nag ne euh, léegi ñu ngi gis fi nga xam ne foofu lañ gën a mën a régler problème bi mooy ci mbey mi mbéy mooy secteur boo xam ne bii muy Sénégal muy yeneen réew yëpp daanaka foofu lañ war a gën a yaakaar pour créer emploi ñu wax ne am na yeneen secteur si lu ñuy wax informel foofu si mën nañ fa def emploi yu bari waaw ah, parce que réew mi moo tëddee noonu am informel dafay am doole te dafa am loo xam ne mën nañ ko ci def Euh, ñu ne aussi nag euh, léegi il faut ñi nga xam ne aussi ñu def auto emploi maanaam góorgóorlu ku ne di jéem a seet mais boo doon ne jeune bu la état employé entreprise employé ngay jéem a seet yow nan ngay def pour am liggéey loolu nag état bi dafa war a accompagner waaye dañu bëgg wax naan surtout li gën a important ci document bi ren dañu seetlu ne politique emploi rek réglewul problème bi problème koom-koom nu ñuy jaare pour soxali koom-koom bi ci banqaas bu ne muy agriculture muy industrie muy euh, commerce loolu mooy li nga xam ne moom mooy indi liggéey waaye di waxtaan ci liggéey rek loolu du créer liggéey mais fexe ba nga xam ne ñi nga xam ñoom ñooy yooyu banqaas yooyu soqaliku nañ loolu foofu la ñu mën a xeex li nga xam ne moom mooy chômage. ci mbirum